nekkin dal da koy tamit tubaarkàlla macha allah ñi ma ciy invité ñu bax nak ay garmi kese la ci invité deug neexul man daal côtelette la ko togi ni ni ni laal sama tuuti mbàq ndax mbàq bu bari bi tamit baaxut tubaarkàlla macha allah mbaxal da koy nduru dëkkin puuj paaj buy wax nit ma ngi melni ni ngi jannatu de ni de cobra rek la ci tuba li ma ko xamal sutul woon. waaw maman maman yow lan ngay toog ci kër gi yow. Eh, ma ah, ah man damay togg de dëgg neexul damaa yeewu dem marché. lu ma nak la togon tu dëxin bu saf sap sama maman lan dong la bu nga xam ko loo ma wara wax yalla def na gis nga keur gi man xolal kenn aluma neeg bi te dénku nu ma néeg bi dama luwe di fay par wer de goma de sama dëxin ko det la ca sànni fam ba ngi ni dama dama ko doo damaa cof rek dugal mama mama gis nga nak lo ëpp tour yaa ngi may dégg li nga nekkee ci kër gi ñaaw na trop ah. bis bu ne yaa ngi may wut nag ah. ñëw ba si sama buntu nekk di fi togg yu soo yu xeeñ yi di yàq sama koor ah non non loolu dootuma ko mënati ah, ah. mënatuma ko muñ ki dafa mais ki dafa feebar démb la jóge hôpital ku feebar nga waxee ni mais xanaa xamoo ne jigéen am na moment yoo xam ne du mën a woor bu soobee yàlla kobra ci naan kobra comme nga xam ne ba mu baaxee ba tey banut ak sama mag ja ca Tambacounda muy xadi

amatu fi nag gis nga kër gi maa ko def sax kër gi dama koy génn parce que naa ni ah. cër bi ma amoon ci kër gi léegi amatuma amatuma ko ci kër gi ah ñëpp ñëpp ngi wax gauche droite ah te man damay fay léegi musuma ah. tardé weer ah yow nag ah. la metti na xaw ma ko da ngaa feebar tey loo ciy nekk di wax ko li nak tigga dege la te da nga sol bula bala mu cee taas puus ma ba nee. xanaa tigga dege euh, Mali bi la. na ne bu Mali waaye doo jàllale. jarul ngay takanti ko de fi ni ma momé maa moomee goma déggoo ma ne lii am na géej gi ya ya yaa eh, def ni sa bakken de. ma ko jël la si fora la sa fora man duma la lolu yow. Hmm. kot det la ci def ak touti mbaq tembal ci touti gerees ah man limay dexin du sama âge. maman xam nga ne man bu bu koor bi euh, defee jur yi nii sama ba lu may man damay togg damaa bëgg nga jàll ma nii. maman xanaa bokk ci <laughs> ah, ah, waay kii nag bàkk na njàg te njàg du ko dimbali tey laa lay wan maa ngi mel ni papa rastamaan ah yow nag dimbali ma. yow yow dimba lii ci nu dëxin bi tubaarkàlla macha allah bu xëdd jotee xam na nan laay def damay ceeggi gi lu ma ci añee laay jël. bu xëdd jotee ma jël sama glace toj ci paan bi jël kin bi teg ko fa léegi eh. xam nga lu ma bëgg eh. bu daken bi pare ba nga dugal ko sa néeg dëgg la moo commentaar nga woo ma eh. yaa ngi dégg parce que tey sama estomac bi ulcère bi daf maa daaneel bu kenn yëg nag ndax ñoo bokk ndey ak bàyyi ma rek la wax ma waaw mois dinaa ci xëdd di ci ndogu di def lu ma neex lii rek baax na man kese la ay xaamu teg ko balaa ma maa xam naa du wóor du wóor kat ak mariama sax wàññi naag sama gaz mag ji nag dama koo yërëm de ma ne ko docteur dama koo yërëm de ñàkk jom weesuwul tegari ka ko jàpp moo tax jabaram yëpp voyageur mel ni pison voyageur xaama dem rek ñu ñu kii fu xaama salon bi sama loxo fëggatu maman dëxin weeru koo day tàng ah yow yow yow rek del de yow xam nga ne waruma la woon a invité am na ñang laa waroon invité fii toj

<laughs> lii de ku ma ko ma gëm du ko gëm maa ngi juum yow daal dafa mel ni sa jabar yi buñu demee ba tey sa xel mi dafa dem. loolu mën ngaa bëgg nekk dëxëñ yow eh, xam xam la dëxëñu weeru koor la tee ngaa ñëw daa ñu na gis nga gis nga tukulóor bu déggee olof day ëppal tee ngaa ñu ci dëxëñ bi am na kaaneñ bi am na clavier am na kaa ñu wali kuutoon ne yow ñoom ah, ah. galle maa ngi lekk rek waaye damaa wóor de. benn benn sax rek yàlla di mu baax. voilà. maa ngi doon ne la kër gi yàlla di gën a. laalal kaa ngi dina xool. dund bi tëmb na de. maman kan moo la jox dépense bi. yow man samay système. waaye daa mel da ngay mbaaraat ci weeru koor. léegi dafa daal ko jox. waaw waaw la. non ay xam si

am naa ku mat kilifa am naa ku mat xarit. moytul tëfli suñu lekk bi de. yow ñàkk nga fayda bëgg a ñàkkaloo ñi fayda yow moom yow moom yow moom bu ma waxati dara yow da ngay ñibbi fuuta yow yow yow ah, ah, a hootay fuuta bi a tooñi kam a tooñi kam da cakri ma mi ñama dëxin bu fii lan ni moo dëxin lii bee ko cuk amoo jam lakk nga ña yaa ngi dee eh, lañ nekk. Eh, yow eh, yow tijjil ma lii eh, yow wax na dëgg da ngeen a wóor ba leen ba leen bi. yéen yéen yéen yéen amoo leen yàlla amoo leen yonent bi. ñam saf na de. <laughs> yéen barki yow lakk de kii dina gaañu de ah kii nu muy def nii yow ah.